mbokk yi seen jotaay kàggu mag ñi nag tey dellu si fii nga xamante ni ki résidence bi nga xam ni fekk si nañ fi tey muy Serigne Cheikh Issa Diène di seet si euh, maam Cheikh euh, Issa Diène di ko santaat bu baax a baax ci disponibilité yombal bi mu yombal ndax ni koy waxee itam jotam bariwu ndax lu ci bëree bari euh, mu ngi ci dëkk dëkkaan yi di jàppale jaamu yàlla yi sëñ bi Diène naan la asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm maam Cheikh Issa Diène sama sëriñ. di nuyu mboolem jullit yàlla yi di la ziare suñu Muntaxa bu baax a baax a baax. jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Issa Diène fi may njëkkee ci kàddu gi euh, muy laaj boo xam ne la mooy sunu laaj bu njëkk euh, tey dañu gis ni da ngeen a ñeme li nga xam ne moo di kurus loolu la ci wàllum kurus ndax ñu bëri dañu jàpp ne tant que xaatu mu ñu leen dafa leen xawaatim ñu xool xawaatim bi daanaka seen mbir seen xel du dal te yéen la plupart seen doole yëpp ci kurus la bëggoon naa tuuti nga détaillal ma maanaam ab leeral ci diggante xaatim ak li nga xam ne kurus ci wàllum ñaan. waaw suñ Muntaxa laaj nga laaj bu am solo boo xamante ni sawar naa ku ma ko laaj waaye ñu bëri ñu ngi ma koy laaj xam nga asraar dafa am aw yoon waaye baas bi mooy nga ñeme kurus ndax ab ceeb soo ko toggee te dafa ci xorom. defoo ci légume du neex a jëfandikoo moo tax baasu asrar il faut nga ñeme kurus kurus nag moo lay may ijaaba ijaaba ijaaba mooy loo ñaan suñu boroom mu nangu ko waaye kurus dafa am ay sart dafa am ay jamono yoo xamante ni boo mel ne lu dugg xalwa wala nga def ay tëju am na yoo xam ne boo ko téyee boo téyee kurus am na yoo xam ne doo ko jëfandikoo lu mel ni loolu ñu jën ak ndawal ak ay nen ak yooyu yooyu lu xeetoo ci meew wala lu xeetoo ci lu ñuy jëfandikoo luy dund rek doo ko jëfandikoo kurus loolu bokk na ci ay réalité yu mu bëgg nga xam ne da ngay jëfandikoo lu mel ni fruit bi lu mel ni pomme orange yooyu daal nga ëpp loo jëfandikoo ak gerte ak ataaye ba li ngay ñaan yàlla suñu borom suñu borom sottil ko. waaye nag benn business mooy xaatim xaatim moom ay kayit la rek kayit goo bind nii desin dugal tëj turu nit ki sol xaatim loolu am na solo lool waaye baas bi mooy nga ñeme course bu baax a baax a baax tabarkallaahu ñaan nag dafa am ay réalité am ñoom dañuy ñaan ci course am ñoom dañuy def loolu ñaan sun maniw sunguf ak reen sëf ak yooyu yu demee noonu waaye ay façon yu bëri ba xanaa bu ndee daan ko gën a leer bu baax baax baax. Hmm. jërëjëf sëriñ Cheikh Issa Diène ci leeral yu am solo yooyu tabarkal la sëriñ bi fi ma jëmaat directement muy am na ñu nga xamante ni seen jamono daanaka daanañu dox seen mbir di dox mu mel ni dañoo dem ba mu yàgg mu mel ni seen wërsëg dafa taxaw sëriñ bi tey boo gisee tey jëmm ju mel noonu kooku des koy mën a talaat ba mu jugaat. loolu ñaareel dana ko def mooy ay liggéey yu yàgg ci doomu aadama bi wala cat. wala kumte loolu ñaar da koy def loolu nag bu la dalee dañ lay xoolal li sa xaaral la ndax docteur boo fay dem il faut nga def ay analyse am foo jaar fu bëree bari ñun nag soo ñëwee ca bala ñu jël sa dossier dañ lay xoolal li sa xaar la ba xam yow lan moo la jàpp ba xam cat moo la jàpp wala liggéey moo la jàpp wala gàllankoor walla def-def ndax yooyu yëpp day am bu dee cat daa am lu koy dindi bu dee gàllankoor yu yàgg. daa am lu koy dindi bu dee def defit daa am lu koy dindi mm-hmm. loolu dana waral kumte ku amoon wërsëg wërsëgam yëpp ñëw mu jékki-jékki boole ko loolu sabab yooyu da koy faral def. Mm-hmm. mais sëñ bi ce que des ko mën a taalaat ba mu nekkaat ci jamono ba ay mbiram doxaat. waaw incha allah rabbi ci kàttanu yàlla loolu yoon wi ñu daan jaar suñ fa jaaree suñu borom dana ko dimbali ba ba wërsëgam dellusiwaat waaw loolu moom suñu borom may nañu ko te dañ koy def ci kàttanu yàlla. jërëjëf mbokk yi seen jotaayu kàggu maa ngi di wéy ba léegi ak sëriñ Cheikh Issa Diène la mbokk yi ni ma leen ko waxee itam euh, jotam euh, taxu ko bari lool waaye tamit mu yombal ñu li ni mel euh, kon nag faw ñu profité itam am loo xamante ni dana ko mën a baaxee askan wi sëriñ bi ba muy ñëw tudd ko léegi muy rab ak cat ci boppam léeg-léeg gis ñoo xamante ni dafa mel ni mbir moomu sax dafa xaw a jaxasu seen i gët rab ki nga xam ne da koo jàpp ak ki jàpp naka lañ ko mën a ràññee. waaw si mun taxaa loolu ki nga xam ne rab da ko jàpp ak cat cat moom mooy wax yu yàgg ci nit ki ki nga xamante ni ba muy nekk tut tànk bi mu am ñetti at la xeemam lu xeemam lu mooy rafet daal fu mu jub ñu bëgg ko ñaari loolu mu topp ko ci ngoneem ba ci waxambaaneem ba ci dëgg dooleem cat da def wala foo dugg rek ñu am ci yaakaar cat da def wala am yaakaar ci yow baax a baax cat da koy def rab nag lu ñu am na ñu bëri ñoo xam ni dañoo dem ba nekk waxambaane mu topp leen mu feeñu leen mooy sooy sëy muy metti wala nga mu nga yeex am borom kër rab bi da ko fiire wala lu mel ne ngay gént di nekk ak nit koo xam ne du gën sax seq du gën sax seq ay wax nga rus ko loo rab da def léegi loolu yi kum dal fan daan jaar ak nit ñi buñ fa jaar yow suñu borom dañu suturaal ci kàttu yàlla incha allah jërëjëf sëriñ bi ñu ñëwaat ci euh, wax nañ ko léegi rek muy wàllu listixaar euh, ki nga xamante ni daal bëgg na ay mbiram xam ko léegi-léegi mu naan jooni jóoni bi euh, muy wàllum seet ak listixaar bi nga xamante ni xëy na fanaanoo la sëriñ bi loolu moo ngi dépendre ci nit ki jafe-jafem gàllankooram fi mu topp wala fu mu toll la wala waa dafa am ñetti façon listixaar yoo xam ne dama koy def mooy bi ma la woon léegi am na boo xamante ni ramnu la tudd si suuf laa koy xoolee am boo xamante ni ci ndox laa koy xool da ngay yor jaaru xaalis indi kaas nga toog ma toog mu wan la léegi am boo xamante nag timis lay koy def fanaan na ko bësët boo ma woowee ma wax la ko muy listixaar yooyu yëpp dafa am façon bu ñu koy defee incha allah rabbi te yàlla may nañ ci hmm. jërëjëf eh, sëriñ Cheikh Issa Diène yaakaar naa ci bunt boobu leer na ñu ñëw ci wàllu eh, nopp ndax ñu bëri dañ koy wax muy wàllum boole waaye nag euh, sëñ Cheikh Issa Diène ñu bëri dañuy wax ne nopp ci wàllu nit ku nit weex dafa jafe ndax loolu danga koy dëggal am déet. nit ku weex moo gën a yomb sax jàpp nit ci nit ku ñuul ndax bu dee nit ku weex ñu si fonk ñaan bëriwul nit ku weex nag li koy jàpp mooy sulmaniw bu dëgër waaw loolu li koy jàpp xam naa ko moom laa man ki ñaan yow loolu li ma ci am ci indi ñu ma ci woo sax kenn xam na toll jàpp nit ku weex loolu yomb la jubale nit ñaari nit ñu xamante ni ay way dencante lan moo xam tubaab la ak nit ku ñuul wala ñaari tubaab walla olof ak olof jubale ñooñu lu yomb la ndax ñun suñ xam-xam dafa am foo xam dañ ko fa jële muy fu wér fu wóor ñu jaaroon ci ay bërëb yu fasanti ko moo tax man la loolu <laughs> su ma déggee nit ñi da wax sax ay ree damay jàpp mais nit ku weex moo gën a yomb jàpp si nit ku ñuul ndax nit ku weex ñi si fonk ñaan bëriwut xamuñ yooyu nit ku ñuul nag moom dafa fonk ñaan waaye nit ku weex jàpp ko ay heure yi nga koy jàpp heure baag waxtu yëpp xam nañ ko ba ko incha allah yow. waaye bi fu may daane rek ñu bëri dañuy wax ni yomb na waaye dafa mel ni lu jafe la xëy na eh, li nga li fekkee li nga xam da ko maîtriser mën ko day yomb waaye am na ñoo xam ñu ngi koy bëgg di woote mais lu jafe la ci ñoom. waa xam nga jàpp nit ku weex dafa yomb ci man lool. ndax dama ko jàng maîtrise ko xam ko sonn ci nag waaw man mënantuma ko dama ko man dama ko yow sax am nga ci dara waaw léegi loolu yi am na yoo xam ni sax daanaka suñ si jëflante nit ki dana si gis boppam mu soobee yàlla waaw sëñ bi may yàkkamti woon si question bi nga xam ni dama ne bu ma toogee yow sax moom laa bëggoon ubbi muy wàllu am doom soxna soo xam ne dafa taxaw muy sa muy sa sa maneen li nga naan sama point li ñu naan point fort ñu bëri nangul la ko sëriñ bi loolu ndax loolu ñu ci bëri bëri dañu dégg ni am na ñoo xam ne seen giir àddina seen giir dund ñooñu du ñu am doom waaye li ma jaaxal ci yow loolu naka nga ko mën a décortiquer ba xam ne kii dafa war a mën a am doom. loolu si mun taxaa secret boobu laa njëkk a xam ci asraar moom laa njëkk a jàng te dama ko fekk nag samay maam yoroon ko ma dond ko ci ñoom muy ki nga jooy liir kooku suñu la saxaaree ba xam fi jaar ak yow suñu liggéey yow da nga ci gis résultat li ñuy def bant new la ñuy wut new new ñu am luñ ko booleel ak yeneen ak yeneen yeneen nga def ko saafara am loo xam da koy takk ci kàttanu yàlla loo toog un mois te déggu asalaamaaleykum loolu ñu bëri dañ ma doom sax loolu moom ñu bëri ci loolu ma gën a xamee sax ci loolu waaye loolu rek defuma ko waaye ñu bëri ci loolu ma gën a xamee waaw. waaw mi sëñ Cheikh Issa Diène ndax ndax joxe date euh, loolu wóor na maanaam joxe délai te yow dama gis da joxe délai maanaam yàqin parce que dëgg la xam nañ sa maîtrise sa point fort la. waaw loolu kay un mois doo am te déggoo dara incha allah man kay loolu moom lu ne gis naa ko ci. tudd leen ma ci ay doom yoo xam ne man mi leen ko tudd ndax loolu ndax kontaan ba ko loolu moom leer na ma moom. ci loolu ma gën a xamee sax waaye daf ma rek nag. waaw loolu daf ma loo rek nag incha allah bi kuñ ci jëflanteel da nga ci gis lu kawe sa njort waaw. mbokk yi kooku mooy Serigne euh, Cheikh Issa Diène mbokk yaakaar naa ne ni mu leen ko waxee numéro téléphone yaa ngi noonu di affiché ci baaru écran bi ni ma ko waxee mbiram moom euh, daanaka li muy dox ci wàllum kurus ñu bëri ràññeeku xam ko nag bu baax ci wàllum liggéeyam di leen fàtt rek numéro téléphone yaa ngi noonu di affiché ci baaru écran bi yéen ñi ko yittewoo rek mën ngeen ko daal di woo ci 77 144 euh, 63 50 boobu mooy numéro whatsapp bi bu fekkee beneen numéro bi mën ngeen ko daal di woo ci 77 716 67 15 sëriñ bu mel ne li ñu desee ci waxtu taxu ko bari ñu ñëw ci wàllum kaaraange maanaam kaaraange bu ñu ko waxee sëriñ bi balaa ma fay ñëw sax damay tëb kaaraange bi ndax dinaa ci dellu si muy wàllu njibar ki njibar jàpp euh, sëriñ bi am na ñoo xam ne dañ leen a euh, sànni njibar ba daanaka dañoo diis mënatuñu xamatuñu sax fu ñu jëm da nga gis ko ñu njibar ba mu yor alalam gu dul jeex mais day romb alal gi ndeke loolu alalam la sëriñ bi ki nga xam ne njibar dafa dem ba chronique ci yaramam est ce que loolu des ko mën a toj waaw ki nga xamante ne corté dañ ko corté wala ñu liggéey ko ay xeet liggéey yu bon bon bon bon bon kooku su ñëwee su ñun ci kàttanu yàlla danañ ko dindi ba mu set ba mu mel ni naka ndaayam jur ba muy doog di judd na mu meloon danañ ko melaat ci kàttanu yàlla. mais sëriñ bi nga baal ma yow loo deful ndax fi ko doomu aadama yi def ñi nga xam ne yow du sa loxo loxo ñeneen la loolu noo ko mën a ràññee ba mën a toj njabar googu foo koy gisee. waaw loolu lu yomb la lu yomb yàlla secret la xam-xam la ah boobaa dañ lay indi si janj boo xam ne janj boo xam xam nga janj ci la ci loolu laa ko dindee oh. waaw ci janj laa ko dindee waaw loolu moom ci janj laa ko dindee ndax euh, xeetu njabar yooyu bu yàggee day lay jox ay day jox nit ki ay feebar yu bon yoo xamante ne baaxut da sa yaram yi day metti sa dënn bi metti loolu la ñuy day dëgër ngay ab wu di xoloo fekk dañ laa def lu bon waaw loolu nag soo ñëwee si kàttanu yàlla si jànjil li may def si jànjil laa koy defee mu dañ set wicc waaw moom set waaw te ku la ko sax noonu dana dana dana demaat ci kawam. sëriñ bi xanaa loolu mooy delloo tooñ. delloo tooñ la waaw. boobu laa tudd delloo toñoo <laughs> waaw loolu laa delloo toñoo mbokk yéen a dégg noonu sëñ Cheikh Issa Diagne mu jotaay bu neex euh, yaakaar naa ne jotaay tamit bu ama am solo tabarkalla euh, ñu bëri ràññee nag ci wàll wi nga xamante ni nag dama ne dafa doy sëkk bu ñu waxee ni euh, maam Cheikh Issa Diagne rek sëtam daanaka loolu dafa doy sëkk sëriñ bi mu mel ni waxtu bi daanaka dab nañu fi may tëgee muy li nga xam ne xew-xew jamono te yaa ngi na togaat sa keppaar daanaka sax suma ma la ki laajuloon doo ci wax muy tey avenir ki nga xamante ni tey mën nañ ko wax ni Ousmane Sonko xëy na jamono gi niñ ko wax ni yëngal mu ngi yëngal dëkk jamono yi ndax fu ñu tourné rek daanaka ñu ngi koy bàyyi xel macha allah euh, mu mel ni euh, avenir am ëllëg ak jamono gi fi mu toll nii mbiru Ousmane Sonko ndax euh, élection yaa ngi ñëw 2024 ñu bëri ñu koy bàyyi xel ñu ngi bàyyi xel tamit ki nga xam ni Karim Wade ñu ngi koy bàyyi xel ak ñeneen ak ñeneen Khalifa Sall Khalifa Ababacar Sall sëriñ bi noo gisee entourage boobu. waaw Ousmane Sonko gis naa mbiram xool ko waaye lëndëm na lool nag waaw dan sëriñ bi lan lay wax waaye li may wax nii lu ma leer lu ma wóolu dama ko gis sama bët na jug ci boppam waaw ndax mi ngi ci yoon te am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi koy bëgg préparer ay njabar yu bon yoo xamante ni fa mu bëgg ak du fa àgg te bu jugul ci boppam man maa gis maa gis mbiram baax na jamono ji ñu yi nii waaye dafa lëndëm ci kanam hmm. waaw dafa lëndëm lool lool lool na jug ci boppam na gën a jug ci boppam ndax ñi ngi ci mi ngi ci moom daal na jug ci boppam daal am na loo xam kenn mënu ko xam mais na jug ci boppam bu baax a baax a baax waaw parce que mbindam biddam biddewam fi ma gis macha allah mais na foo xam ne dañ ko faa bloqué moom tëj bu bëggee jaar ci réew mi nag nekk njiitu réew mi dana gën a jug ci boppam ba loolee ñu ko fakkasal du àgg ci wàllu njabar waaw ndax nit ku weex kooku nga wax muy Karim ak Khalifa Sall macha allah ñoom ñëpp ay doomu réew mi lañ jamono bin toon nii ak li ma sama borom man may Ousmane Sonko bu jaaree ci yoon yi ma xam suñ borom dana dem ba yoonu pale waaye nag na jug ci boppam ndax mbiram xawlaan mi ngi tàmbalee lëndëm lëndëm waaw mi ngi lëndëm lëndëm am na lu ma ci gis lu bët loom dafa lëndëm cris waaw des ko mën a wax waaye xam naa dana am benn suur yàlla daf ñu jokkoo ci yu mel noonu waaw ñu ngi ci war a jokkal bokk waaw waaye lëndëm na nag waaw man nag li may wax Cheikh Issa mooy sama maam du ma waxantu ci xam-xam laa koy teg. jërëjëf sëriñ bi sëriñ euh, i Issa genn waxtu bi dab nañu yaakaar naa ni li ñu may ci jot nii sax mbégte lañ koy wax ndax xam naa ni sa jot bariwul ndax jugee nga fu sore sori ñëwaat sa résidence fii la ñu njëkkante boo xoolee guddi na lool waaye nga may ñu ko ñu di la sant ndax guddi na lool nga war a mën a nekk ci kurus géeg li ni mel ñu ngi lay santaat bu baax looy tàggatoo. waaw di wax ni Sénégal yëpp nañ dellu si waat si yàlla ndax euh, day gëm suñu borom xam ni suñu borom mi ñu sàkk gimiñ gum sàkk dana def lu mu jëfandikoo noonu dellu si waat xol jàmm te réew mi yàlla dina fi yàlla def jàmm ndaw ñi nan góor góorlu si jàmm yàlla bu baax a baax fonk seeni kilifa ndax ndaw mooy aveniru réew waaye nag réew mi gis naa ci yu bari yoo xam ne na ndaw ñi moytu na ko baax a baax a baax a baax man am na suma suñu borom may na ma ci loo xamante ni wan na ma ci loo xamante ni gis naa ci daal réew mi jaxasoo daal ci kanam tuuti waaw mais nag dañ góorgóorlu ci ay istaqfar def ay fiddaaw ku mën a saraxe miskit ak sukkur nga koy saraxe ndax jàmm mën a am ci réew mi sa biir kër maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ndaw ñu ndaw lu bëgg wërsëg da ngay nangoo jaamu yàlla mm-hmm. waaw da ngay nangoo jaamu yàlla tegu ci yoon maa ngi sant ñëpp

716 67 15 loolu mooy numéro bi di ko santaat bu baax rek di ñaan allahu buur bi subhanahu wa doole guddal fanam doole ko defal tawféex tey si rek na yaaxa defal ko saxat daarañ di la santaat bu baax euh, baax a baax euh, sëñ koy santaat bu baax ci liggéey bi ci wàllu présentation seen jotaay kàggu ñi ak seen mbokku taali bi la woon Mouhamadou Lamine Muntaxa ci seen jotaay kàggu ñi yàlla mi borom jàmm teet ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla saa